yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñaar fukkeelu njàng mi yàlla àtte na waa Israyil ndax seetlu wurus wa nañu bamtu nettali yi weesu. benn fukki ndigali yàlla yi lan la lañuy jëriñ. ndigali yàlla yi ñu ngi won nit ñi seeni bàkkaar. ñaar. ndax kenn mën na topp ndigali yàlla yépp déedéet kenn mënula topp ndigali yàlla yépp bés bu nekk ñett ndax yaa ngi topp ndigali yàlla yépp déedéet du bés bu nekk ñeent kañ nit tàmbalee bàkkaar bi aadama ak awa bakare juróom lu tax nit ñiy bàkkaar ndaxte dañu judduwaale bakkaaru aadama te ñu ngi topp seen bakkan juróom benn naka la yàlla atte bàkkaar kóllëre gu jeex ak dee juróom ñaar lan la waa Israël waroon a def ngir mucc ci malaaka dee gi ca Misra. dañu waroon a rey xar te wis deret ja ca seeni buntu kër. mbind mu sell mi nee na ci gàddaay gi saar fanweer ak ñaar aaya benn ba aaya juróom benn ba mbooloo ma gisee ne musa dafa teew wàcce ca tund wa ñu wër aarona ne ko jógal defaral nu yàlla ju nuy jiitu ndax musa mi nu génnee réew misra xamuñu lu ko dikkal noonu aarona ne leen tekki leen jaaro yu wurus yi ci seen noppi jabar ak seen noppi doom yu góor ak yu jigéen indil ma leen noonu ñépp tekki jaaroy wurus yi woon ci seeni nopp indil ko aarona mu nangoo wurus wa ci seeni loxo yetti ci selu wurus wu ñu mool ganaaw ga ñu ne yow bani israyil sa yàllaa ngi ki la jële réewu misra naka la aarona gis loolu mu daldi tabax rendikaayu sarax ci kanamu selu wurus wa daldi yëgle ne jàpp nañu suba muy bësu màggal aji sax ji ci suba teel ñu xëy rendi sarax suñuy lakk ak saraxi jàmm mbooloo ma di toog di lekk ka naan ba noppi jóg di mbumbaay bu leen fàtte ràññee melokaan yàlla yi ci nettali bi yàlla àtte na waa Israyil ndax selu wurus wa nettali bi mu ngi aju ci arona ak selu wurus wa yàlla wax musa mu yéegaat ci kaw tund sinayi yàlla jox ko ñaari àlluway xeer yi ñu bind fukki ndigal yi musa toog ci tund sinayi ñeent fukki fan noonu waa israyil yaakaar ne dootul wàcc ñu wax aarona mu defal leen ab yàlla ngir mu jiitu leen aarona jël seeni jaaroy wurus ruyal lépp defar ci sellu wurus nit ñi ne sellu wurus wi mooy nataalu seen yàlla bileen leen génnee misra nit ñi di màggal seelu wurus wi di ko indil ay sarax ñu def ab màggal ñu bare ci ñoom naan ba màndi tey def ay jëf yu bon mooy nañu ndigalu yàlla yi waa Israyil ñoo ko tey bañ a déggal yàlla yàlla xamoon na li waa Israyil doon def bi musa nekkee ci kaw tund wi yàlla meroon na lool ndax waa Israyil yàlla wax musa mu dellu ci waa Israyil yàlla wax Musaa dinaa daan waa Israyil ndax seeni bàkkaar waaye dinaa wàcce ci yow askan wu yaa waaye musa ñaan yàlla ngir mu jéggal leen Musaa fàttali yàlla li mu digoon Ibrahima isaaka ak Yankoba ne dina leen def askan wu yaa te may leen suuf mu fàttali yàlla itam ni mu yeewee waa Israël ci misra ci buumu njaam noonu yàlla ne dootu leen rey ñoom ñëpp yàlla jox musa ñaari alway xeer yi ñu bind fukki ndigal yi musa wàcc fa waa Israël daloon bi musa gisee sellu wurus wi ak nit ñi di fecc mu daldi mer lool musa ne ñaari alway ñu toj noonu musa jël seelu wurus bi lakk ko dëbb ko suy ko ci ndox mu jox waa Israyil ndox mi ñu naan ko ganaaw loolu Musaa taxaw ci buntu dalukaay ba xaacu ne képp kuy topp yàlla ñëwal fii taxaw ci sama wet ñi bokk ci askanu lewi ñëw Musaa wax ne yàlla sant na leen ñu jël seeni jaasi te rey ñi bañ a topp yàlla waa kër Léwi def li leen Musaa sant bés boobu lu tolloog ñetti junni ciy góor dee nañu Musaa ne waa kër Léwi dinañu beru lu ko dalee bés boobu ngir liggéeyal yàlla ndax ñoom déggal nañu yàlla Musaa delluwaat ngir ñaan yàlla mu jéggal waa Israyil seeni bàkkaar waaye yàlla ne ko dina daan ñeneen ñi bàkkaar gannaaw gi yàlla wàcc am musiba mu rey leen fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax nit ñi wax arona mu defal leen ab yàlla bu leen jiitu ndaxte nit ñi gëmatuñu woon yàlla bi musaa toogee ñeen fukki fan ci kaw tund wi ci la nit ñi tàmbali ragal ne yàlla wàcc na leen xalaatoon nañu ne yàlla sore na leen te mënuleen dimbali bëggoon nañu jaamu leneen ndaxte xamoon nañu ne soxla nañu ndimbal waaye wutuñu yàlla aji dëgg gi ñaar ban ndigal la waa Israël moy bi ñu màggalee seelu wurus wa ndigal lu jëkk li wax ne bu leen am yeneen yàlla judul man ñaareel bi wax ne bu leen defar benn xërëm ñett ndax yàlla xamoon na li waa Israël doon xalaat bi ñu defaree sellu wurus wi waaw yàlla xam na lépp ñent lan la yàlla wax ne dina ko teg waa Israël. dina leen daan ñoom ñëpp. juróom ndax def na ko. déedéet. juróom lu tax defu ko ndaxte Musa fàttali na ko li mu digoon Ibrahima Isaaxa ak Yankoba juróom ñaar lan la yàlla digoon Ibrahima Isaaxa ak Yankoba dig na leen xeet wu yaa suuf ak ab sëtu awa buy daan seytaane juróom ñett lan la musa def bi mu wàccee tund wi ak ñaari alawey xeer yi dafa meroon mu sànn alwa yi ñu toj mu lakk selu wurus wi jox leen ko ñu naan juróom-ñeent naka la yàlla daane ñi bàkkaar yàlla dafa sant Musa mu rey ñenn ñi gannaaw gi yàlla wàccee am musiba rey ñeneen ñi lu nit ñi fii di def bu ñu nekkee ci njàqare bu ñu amee ay rëq-rëq ni ki kolere gu tas wala ñu feebar dañuy dem ci yeneeni nit dañuy dem ci ay sëriñ wala ci ay jabar ngir ñu wax leen fu seeni rëq-rëq jóge te ñu dimbali leen duñu dem ci yàlla fukk ak benn lu tax nit ñi duñu jublu ci yàlla bu ñu nekkee ci naqar dañuy xalaat ne yàlla sore na leen te amul yitte ci seeni jafe-jafey àddina fukk ak ñaar ndax niti jamono ji ak waa Israël ya wuute nañu déedéet lu tax wutewuñu ndaxte ñoom itam teguñu seen gëm ci yàlla bu ñu nekkee ci njàqare du ñu jëkk jublu ci yàlla yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi te naka lañu ciy feeñe yàlla xam na lépp bi yàlla di wax ak musa ci kaw tund wi xamoon na li nit ñi doon xalaat ak di def ci dalukaay ba yàlla dafa jub yàlla reyul waa Israël yépp ñi bàkkaar rekk la rey yàlla kenn la amul moroom nit ñi defar nañu seelu wurus def ko seen yàlla waaye seen yàlla amul woon genn kàttan yàlla bëggul bàkkaar yàlla daan na nit ñi bàkkaar yàlla lu mu digee def ko yàlla digg na ibrahima isaaxa ak yanqoba ne dina leen def xeet wu yaa te dina leen may suuf te itam dina am bés sëtu awa dina daan seytaane looloo tax mu am ñu mu musal ci waa israyil beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla joxe Musaa nataalu mbaaru màggalukaay bi